nga ne politique économique Sénégal bayu pour lu mu dundee il faut ñu importer bu ko bu ko bu ko critiqué ñun ñoo deful dara pour ñu a am amuñu ko nag il faut ñu importer ci yenn pour mën a survivre léegi loolu yëpp politique boobu kan moo ko rek ku ñuy jox pouvoir le chef de moom voilà c'est lui qu'on a donné le pouvoir le le les moyens pour que mu liggéey man joxuñu ma ko jox li ma lay laaj moo tax yéen opérateur économique yi ngeen raxas seen loxo ci politique. dañoo cest à comme acteur man politique gu gis nga li gis nga fañ ma fekk daal sama kaw su ma doon politique mu ne su ma doon politique kon dañ may dàggate par force. alors soo soo doon politique ànd ak ànd ak nguur gi xëy dina gën a dina gën a yomb ci yow. nguur gi baaxul ma ànd ak moom damay cautionné lu bon peut-être wóor na ma ni kon du jëm fenn. d'accord man bu ma cautionné lu baaxul lu jëmul fenn ma ko cautionné. bu ma demee bay engagé damay wóor ni lii may engagé lu baax la ma accompagné ko. Mhm. mais lu ma ànd ànd ak yow nag boo nekkul dëgg dama nekkul ci dëgg. man combien de fois la taxaw dajeeg président de la ni ko infrastructure yu baax na yi baax autorité yi baax mais économie bi zéro économie bi amul kenn ku ko toppoo defuñ ci dara daje ngeen fi def ay assises politiques assises économiques. infrastructure yooyu dafay jur économie. dafay infrastructure yu bëri lu ko indi. TRD hmm. BRT yi lan la. parce que Dakar dafa surpeuplé. pourquoi ñu fexe ba peuple pour exode rural bi yëpp ñëw parce que monde rural bi amatuñ lu ñu liggéey. tout est à Dakar tout Dakar. Mhm. léegi lan moo fi des ñoom ñëpp ñëpp ñëw Dakar raxas oto nangam nangam def des petits métiers am moyen jël gaal gi wala nga jël barça barça loolu moo am Sénégal est-ce que loolu mooy développé réew. mais est-ce que jotul tey yéen opérateur économie ngeen dugg ci langue politique bi parce que boo leen toogee banque seen yoxo aussi ce sont des gens yu nga xamante ni amuñu benn connaissance amuñu benn expérience ñoom ñooy ñëw jël jël jël justement li nga xamante ni yéen a ko moom mais dañoo ragal lu tax ngeen ragal non parce que xam nga kenn ni bu bëggee dem moom rek sans am sans mu ànd ak le secteur privé problème day am mais normalement secteur secteur privé waroon une fois mu jox un cas un élément du secteur privé mu diriger su boobaa ngeen xool da ngeen di. parce que yéen déggoo ngeen. donc vous faites mutuellement confiance au point de de de pour benn acteur économique benn kenn ku nekk secteur privé bu bëgg moroom ay ñaata association ñoo fi nekk. bari na xanaa comme ni parti politique yu mel. Mhm. mais parti politique sax on il ñu am pourquoi 300 partis est-ce courant trois yow socialiste nga wala je ne pas gauche nga wala xaw droite nga ko regroupé wu en en en partie en grand partie suñ jëmee ay élection ngeen dem ay primaire candidat boobu génn fii benn génn fii benn génn fii ñuy dem élection bu ñu fa jógee après ñu liggéey mais poli politique dafa mel ni un système de chantage dañ koy def pour am quelque chose pour jéem a jege président mu joxoon ay poste ay ministre ay ministre d'État ay je sais pas ay ministre conseiller xaw ma je sais ay membre du conseil économique et social yooyu ñu leen ko jox pour que simplement am nañ am nañ benn parti. Mhm. bu ñu waxee ñun waaye am nañ te parti bu feesul sax télécentre il faut qu'on arrête. depuis combien temps ñu ngi ci loolu dafa war a jeex na. il faut que ça change quoi. il